Cheikh Fallou Luc Nicolaï bokk na ci ñi organiser yeesal ak coppi nañuy taxawalee grand combat fii ci Sénégal ba mu dikkee ci arène bi ci atum 1999 taxawal combat mu njëkk doxoon diggante Tyson ak Morfadam euh, promoteur Petite Côte bi jot naa kon def ay jéego gën a xarañal liggéeyam ba bokk ci ñu gën a xor loxo euh, ci wàllu taxawal ay affiches ci Sénégal ci combat yi gën a mag te gën a dofloo waa Sénégal euh, tax ba ku ci nekk yor sa kàddu di wax dimanche ju ne mën nañ caa lim combat yi mu tëggoon diggante Modou Lo ca ba muy door moom ak Lac de Guiers mbaa diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo boo xam ni lëmbee woon na Sénégal ak sax fudul Sénégal ñu jàpp ni foofa le Luc Nicolaï di yem mu may waa Sénégal affiche bu ñëpp doon yaakaar a am muy combat bu doxoon diggante Yékini euh, buuru làmb ji ak Balla Gaye numéro 2 mi ko doon tey jii booba combat mi ngi ko tëggoon ci ñaar fukki fan ak ñaar ci avril 2012 déet na waay Luc Nicolaï ñambaas daa ji tàgguwaale monde arène bu senegal bi combat bi doxoon diggante bombardier B52 bu Mbour ak Tapha Tine taq ci répp tàkkusaan googa ñëpp a koy fàttaliku ca stade Demba Diop ndax spectacle ak organisation bu jaar yoon loola ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci atum 2012 bi la xewoon Euh, kilifa yi structure bi di Luc Nicolaï Enco am gis-gis bu wuute lool ak ñi fi nekkoon am ci naka lañuy ñuy taxawalee grand combat ci naka lañu koy siiwalee ci naka lañu koy jaayee ak itam bu ñu yeggee ca bés ba naka la ñuy def ba mu nekk spectacle bu mucc ayib ñu mun koo jaay fu ne noona la Cheikh Fallou Luc Nicolaï daal di kon ci diggante Balla gay numéro 2 ak Modou njëkk dugal ci arène sénégalaise ci waxtu bu ñu waaj a soufflé grand combat lu ñu duppee ab feu d'artifice te dañoo jëlale lu jàppoon jëm ci organisation ay concert ci biir grand combat yi ay spectacle ak i démonstration yoo xam ni ay artistes ak yeneen nit ñu siiw daan nañu ko def waaye Cheikh Fallou Lugne Nicolaï bëri na ci ay soppe ak yi nit ñu ko jege lool ñoo xam ne umpale woon nañu ni ci atum 1980 jot naa kon dem France ca Bordeaux jot naa sax nekk militaire ci armée française moom moom goneeg rubis gi nga xam ne jot naa jaar itam euh, fële ca Pikine ci wetu baabooy ak magu baabooy bi jot naa kon doon itam animateur ba mu nekkee gone waaye ba mu dikkee ci làmb ji moom Cheikh Fallou Nicolaï yemul rek ci di tëgg ay grand combat ndax itam bokk na ci ñi siiwal yéen ci ay mbër yoo xam ni euh, tey ñi ngee toj arène bi ñu mën caa lim site lansar moom Cheikh Fallou Nicolaï mooy ki ko njëkk fay euh, cachet bu gën a fort mu bëree grand combat waaye Tapha na ci mbër yi nga xam ni moom Cheikh Fallou Nicolaï moo leen sanc ci ëttu mag ñi jox leen doole fulal leen ba noppi gëddaal leen na ay atam weesu ñeen fukk moom Cheikh Fallou Nicolaï am ñaari soxna ak i bant nekk itam ku jege lool njabootu Serigne Touba gii loola tax sax kon ba ñu koy woowee Cheikh Fallou Nicolaï te tur booba ma nga judd ci ndaje mu doxoon digganteem ak waa kër Serigne Touba jaare ci jëmm euh, sëriñ Bara Mbacke mu tedd mi jàpp nañu ni ak Cheikh Fallou Nicolay coofal mbuur gi saa su dikkee ci làmb ji lépp yëngu ba ku ko romb xam ne moom Cheikh Fallou Nicolay moo fi jaar. ak Bombardier